salaamaaleykum tey nag euh, message bi may lancé Ousmane Sonko laa koy lancé parce que Ousmane Sonko dafa nekk fii képp ku yëngatu ci réew mi mu ne sàcc nga jiiñ Mamour Diallo 94 milliards. bërki démb El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf def conférence de presse démonter li nga xam ni moom la Sonko doon wax lépp ñëpp xam ni Sonko lu mu wax du dëgg tey jii. Sonko mës na jiiñ nit dara loo xam ne day dem indi preuve bi ni preuve baa ngi nii saa yuñ ko saa yu jiiñee nit dara bu ñu waxee bu demee bi ci biir commencé tourner xam na ni maître El Hadj Diouf bi jekku na ko parce que mu ngi koy laaj ay preuve mu commencé di génne beneen dossier naan ay palame na wax ci affaire u 94 milliards yi moom moo ni Mamour Diallo dafa sàcc 94 milliards tey jii assemblée bi ñëw leeral ko ñëpp leeral ko tey jii mënuloo tey jii boo boo jiinee nit sàcc da ngay dem indi preuve ni ko li nga sàcc mais mënoo jiiñ nit sàcc tey jii avocat am génn wane ni yow amuloo benn preuve teg yow yi nga xam ne yëpp yaa ngi ko doon teg deal sénégalais nit ñi commencé comprendre nga bëgg yee beneen dossier Ousmane Sonko bu mu ñu fontoo bu fekkee ni dafa yaakaar ni moom moo gën a yeewu sénégalais yi gën a yeewu na wax ci affaire u 94 milliards yi nga xam ni tey jii mun na ci dem kaso parce que dafa accuser ay nit gratuitement wasalaam.